nuyu yaa délégation bi nga àndal soxna Saly Sène sous-préfet Mamadou Ly commandant brigade Fall Darou Mouhty ak chef de yi nga xam ni yëpp lim nañu leen fi e, ñu lay nuyu ci turu Cheikh Mouhamadou Moustapha mii nga xam ni mooy taawu kër gi di suñu mag sëriñ bi jiital ko ci lépp lu ñuy liggéey lu jëm ci kër Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ndax ay jikkoom yu rafet ak oyofaayam damay wax saa su nekk ni jikkoy sëriñ bi rek la yor te lépp lu sëriñ bi joxañ mu téye ko kon maa ngi di nuyu ci turam te mooy nuyoo Cheikh Sidi Makhtar Mbacké ak nuyoo njaboot bi yëpp sëñ bi yabal ñu ñun ñëpp ñu ànd waa kër njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ak ñi nga xam ni ñoom la séqal màggal gi góor gu ñaaw gi suñu maam di Serigne Cheikh Kajoor nga xam ni mooy imaamu Mbàkke Kajoor waajuram mu sell wa moo dalaloon Cheikh moomu leen baale fii Serigne Amar Fall mu ngi ñëw teewal fii Serigne Mbàkke Kajoor Serigne Moustapha bi nga xam ni mooy xatim Serigne Mbàkke Kajoor Serigne Bara Abdoulahat Serigne Khalid Moussaïn sering Sidi Mbacke Abdul Aziz seringnya Yendali Mbacke Abdoul Aziz sering Khadim Mbacke Abdul Karim sering Sidi Amar Fall Mbacke sering Modou Bara Abdoul Khadim serigne Saliou Mbacke Cheikh Sidi Makhtar serigne Jili Mbacke Amar Fall serigne murtala Abdoul Khadim serigne Abdul Ahad bouzo ñëw teewal fi serigne Abdoul Aziz Khadim Awa Serigne Ahmadou Fall Ndeye conseil territorial naka noonu sëñ Sidi Abdou Aziz nek premier adjoint au maire Touba ànd ak Pape Sarr teew la commune Serigne ak commune Touba bi yëpp sëriñ Mar di kenn ci jëwriñi Serigne bi ànd nañ fi après tay madame le préfet fédération Cheikh Mouhamadou Bara Sadoul Abrar bi nga xam ne sëriñ Abdou Aziz Lo moo ko jiite ak bi nekk Ndakaaru nga xam ne Alhaji Fall moo ko jiite fédération Cheikh Mouhamadul Moustapha bi nga xam ni sëriñ Abdourahmane Mbacke Gaynde Fatma moo leen fi yabal sëñ Ibra Kane sëñ Basirou Ñaan ak sëriñ Lo daayira Hizbut Tarqiyyah sëriñ Youssou ñëw na ànd ak mbooloo teewal fi sëñ Atou niñ daan ànd liggéeyu at mu nekk daayira mën dëbul foofu sëy ni itam sëñ Omar Sénébaloo yebet sëñ Moustapha Silla sëñ Ibra Kare ak sëñ Modou sëñ Mor Ba sëñ Mor Tambédou mi nga xam ne moo yore fédération bi nekk Touba Espagne Cheikh Khadim ñi fi teewal sëriñ Cheikh Jëmm Khalifa Cheikh Mouride Baye Fall itam ñoom it ñëw nañ fi gis nañ fi sëriñ Modou Bara xalifa sëñ Abdou Khadim xam naa dafa amoon empêchement ba teelu ñëw trop dafa am lu xawoon tuuti rek waaye agsi na ci jàmm da doon ndékk waaw loolu sëñ Moussa waxe chef de village yi nga xam ni ñoo nekk ci commune Mbacke Kadior ñoom ñëpp teew nañ fi eh, am na ñoo xam ne ay jàmbaar lañ jàppale ci liggéey ku mel ni Ousmane Diouf bi wax léegi Moussa Diop Ibra Sall sëñ Abdou Latif Mbacke sëñ Cheikh Sidi Makhtar Alhaji Ndiol Seck sëriñ maam Thierno bi nga xam ni mooy maire commune de Darou Marnane ñëw fi teew fi en tant que maire waaye ñëw teewal fi alxaaji maam Thierno nga xam ni moom sëriñ bi ñooy bokk di saytu màggal gi së sëñ Modou Bara mu sëriñ Modou Aïssa moom it teew na fi sëriñ Modou Aïssa sëñ Amar Fall teew na fi sëriñ Abdou Karim di suñu doom di suñu jarbaat mu suñu xaadim Modou Bara teew na fi ñu ñëw fekk si fi suñu maire la commune Pape Ndiaye ak ñi fi nekk ñëpp ku ma tudd itam nga jéggal ma te xam ni kulli mën ngaa fàtte waaye yéen ñëpp ñi ngi leen di nuyu di leen siyaar di am mbégte bu baax ci seen taxawaay ci màggal gi tambalé ko ci sous-préfet ba ci yeen préfet soxna sori jall ba ci gouverneur ndax saa su magal gi djubse ni lañu andé ànde waxtaan xool point yi nga xamni suñ ko waxtané jëfé ko magal gi dina bax ngeen jot ko ci gouverneur jot ko ci kilifa yi ministre de l'intérieur premier ministre ci président Macky Sall waye ñuy sant bu baax ci turu sëriñ bi di ko kilifa yi rawatina président Macky Sall ndax magal gi weesu daaw lépp lu ñu fi daan def dañ ko yokk boo leen gisee muy lépp lu ñu fi def dafa yokk bi magal gi jubsee ñu bind ko lettre mu tontu ñu xamal ñu ni joxe na ndigal premier ministre lépp lu ñu war a def ci magal gi incha allahu dina ko def bi magal gi jubsee mu accès mu jël premier ministre Mohamed Ibn Abdoulaye Ndione yabal ko fi mu ànd ak lu toll ci juróom-ñaari ministre ñëw yendu fi jotali ay terangaam ak cantam ci sëriñ bi kon loolu ñu ngi ko ci sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal e, sëriñ bi itam di sant njabootu boppam gi muy njabootu Cheikh Mawlin Baara muy njabootu Cheikh Moustapha muy képp koo xam ni yaa ngi dugal sa loxo ci màggal bi ni ñu ko waxee léegi sëriñ bi dafa ñu tànn rek teg ñu ci kanam waaye ñun lu néew nañ ci def waaye ñii ngeen gis ñoo ànd ñu ci liggéey bi ba lépp lu ci mat rafet ci ñoom ñoo ko def kon sëñ Moustapha leen di sant bu baax di leen gërëm dëkk bii nag madame la préfet moo di fudul Touba Mbacke Kajoor moo la mag ndax ci atum la Momar Anta Sali bàyyi ko Nioro ci Maba Jaxu ànd ak Lat Joor e, li mu ànd woon ak Lat Joor itam Lat daa sàkk woon ci Maba Jaxu ku koy jàngal lislaamu ak di ko àtteel bi mu ñëwee kër amatu Yàlla moom Momar Anta Sali ngi nekkoon dëkk bi ñuy wax Patar waaye mu jigee euh, pencum buur bi mu wax ni ab sëri ak buur mu ñoo bokk am penc sàkku ci moom ñu wutal ko beneen suuf ci lañ ko indee fii ci Mbàkke Kajoor mu sanc fi 1880 doon fi jàngale mu nekk daara joo xam ni ñu bëree bari jaar nañ fi ci suñ bokk sax tijaan yi ku mel ni maam Abdou Cissé maam yi sëñ Moustapha Cissé Pire maam Abdou Cissé Diamal euh, maam Ilimane Sakho ñoom ñëpp ak ñeneen jaar nañ fii doon fi jàng ba fi la wàcc liggéey ñu yóbbu ko fii ci Derklé Cheikhul Khadim dese daara ji fii la ko Seydina Muhammadin ali salaatu wasalaam jëkk a feeñoo itam ndax fii la waxoon ne shafahani rasulullahi salallahu taala alayhi wa sallama bi xawlihi rabbi asaabaka bi himmatin wala turat mi dar si faxat mu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam feeñu na ma tey wax ni ngir mam awoon ak saxaaba yi naa ci aw ak yéen kon fii la jëkk gis Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ab taawam itam soxna Fatja fii la ganee àddina yoonu murit fii la juddoo ki jëkk jébbalu ci fii la jébbaloo ci moom muy sëñ Adama Gueye mi ngi ci armée yi fii ci Mbàkke Kajoor maam Cheikh Ibrahima Fall fii la ko fekkoon maam Mor Anta Sali ki mujj gis ci ay doomam waxuma caatam de ki mujj gis ci ay doomam muy sëñ Cheikh Absa fii la gënee àddina waaye sëñ ma sàmba mooy am jaatam sëñ Tuubaa gisu mbaa bu yàgguju ci jamono Cheikh di Maxtaar mi nga xam ne mooy xalifa sànq mu itam fii la gënee jamono ci Mbàkke Kajoor Cheikh Mouhamad Lamine Bara 1913 ku tedd ki indi ko fii mu fii liggéey si di fi jaamu yàlla fekk si ni ma ko waxee mbokk mu baax mi maam Amar Fall Mbàkke mu am këram juróom-ñaari weer ba defar këram soog fee toxu ba mu fay génn daf ni aw ma fi dara lu ma li ma fi nekk yëpp te sëñ Touba ba bi koy indi sëñ Amar dañu ko ma lay bolé ko xamni ne ku naqaree nekkal la Amar ni man de man na ma nek ak mom ndax duma ma ak mom dara te lu ma bayé ko ko mooy sama mam ju ñaw ji sëñ Cheikh kadiou imam and bu rafet bobu mo nek ni ba tey kon soxna ci lolu moy mbacké ka foofu fofu lañu woté magal nga xamni dara la deku adala deku la waye bu Cheikh Mawlay Bara fi la nekk di liggéey 1913 ba 36 mu wàcce fi liggéey ñu yóbbu ko Touba ñi nga xam ni nag ñoo jaayante woon ak sëriñ bi bi ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam feeñoo tolloon ci ñeent fukki bi bàyyi ko Mbàkke Kajoor dem ñibbi ba sanc Daaru Salaam sanc sanc yim sanc yëpp ba yàlla jox ko Cheikh Mamadou Moustapha jox ko Cheikh Mamadou Fadal bi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara gane àddina 1891 dafa woo ñoon ñëpp bi ñi ñëw ni leen li ngeen di sàkku seen borom lépp gan gi ñëw indi na leen ko man ngeen a ko bis boobu nga xam ne bisu taw feex la di bis faj aajo di bisu ngëneel bis boobu la Cheikh Sidi Makhtar ànd ak njaboot di ko fàttaliku mooy màggalu jumaada oula di màggalu ka jor insha allah kon li nga xam ne ñun mënaluñ ko suñu bopp sëriñ bi woote ko état man ko ngeen ñëw ànd koog ñun ba lépp di rafet ñi leen sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal di wax rek sécurité ñu gën a farlu ni ko sëñ bi waxee saa su nekk ndax day bëgg ku jóg di màggal si ñëw ci jàmm nekk fi ci jàmm delluwaat ci jàmm ak salaam moo tax ñu bëgg bépp oto boo xam danga nga surcharge ñu wàcce la ñi ci kaw bépp képp boo xam da nga yor deux routes deux roues li ñuy wax jakarta duñ ko maye mu ñëw ci màggalu Mbàkke ci ak yeneen ak yeneen yëpp yu bari su ko defee yeneen yi nga xam ne wàllu sécurité alimentaire alimentaire la itam ñi ko yor saytu ñu was waa service d'hygiène waa élevage service commerce ñoom ñëpp ñu taxaw ci waaye madame le préfet ñu ngi lay sant di sant suñu préfet bi Mamadou di sant bu baax leen gërëm di yóbbante ay cant ak ngërëm di sàkku ci yéen itam bu soobee yàlla suñu Moustapha ni altine bi ñu ñëw su fekkee mën nañ def CRD incha allah ñu def ko kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant nag maire Mbacke Kajoor ci taxawaayam muy Pape Ndiaye ndax fu ñu toll dañuy wootante ak moom di waxtaan ak moom te saa soo ko nee jógal mu jóg ñu ngi sant commune Darou Marnane ndax benn lañ ñu ñaar di sant commune Touba ndax taxawaay bi ñuy taxaw bépp magal bu aw biir Touba sëñ Abdou Lahad Ka loolu la taxawee ci magal Mbàkke Kajoor kon sëñ Sidi yaa Pape ñu ngi umati cant ak ngërëm ci commune bi di beral cant nag koo xam ne kenn la ci ñun muy alaaji jaajal ndax alaaji jaajal dañoo xàmme rek fekk mu ànd suñu waajur di dem ba tële waaye nangu bàyyiwul liggéey bi ànd ak ñun dama la ànd ak suñu waajur kon ñu ngi koy sant sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant la presse ni ñu ko waxee woon ci njàlbeen ndax ñoom saa su magal gi jubsee dañuy ànd ak ñoom di tàmbalee ci CLD bi ba ci CRD bi ba ci màggal gi ba ci conclusion bi ba ci débat yi nga xam ne yëpp dañu koy def lu jëm ci màggal gi ak dundu Cheikh Mouhamadou Bara kon ñi leen sant leen gërëm di sant na service service public bi ak privé bi. wax dëgg yàlla lu ñu soxla ci ñoom ñu defal na ko sans condition kon ñu ngi sant baax di gërëm di ñaan Moussa loolu moo waaw loolu wax nañ ko ci biir CRD bi ci biir waxtaan bi incha allahu wax nañ leen ministre de la santé doomu sëriñ bi la xaritam la taalibeem la lépp loo xam ni yëg na ko taman ko koo bala balaa muy àgg ci président dina ko saafara su demee ba tëdd ci buñ ko waxe président dina ko saafara lolu amul um-, umple ni ci kàttanu yalla bala ñoo toogaat fii déwén danañ fekk loolu soxla ci centre de santé bi mu dépendre ci euh, réseau médical bu ko dina ko def auto bi nga xamni mo moom bëgg def ak li ci am ci ay pan pan so yalla yàlla ci taxaw ak docteur Diouf dañuy sàkku ci yeen rek muy docteur Diouf muy monsieur le maire Pape ndjay lepp lo xam da ngeen ko amati ci ay jafé jafé ñukoy yégalé yëgaale ñun itam ñu mën leen ci pousser jay ñu leen ci su ko defee dana gën yombal liggéey واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين نعم، نعم.